salaamaaleykum bokk département de Koungheul ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu bokk sant yàlla bi nga xamee ni baaxe nañu ñu dund ci deux vingt et bi ba mu jeex di ñaan yàlla mu dimbali ñu may ñu ñu dundaat. deux mille vingt deux incha allah ak at yi ci tegu di ñaan yàlla ñun ñëpp deux mille vingt deux gënoon ñu deux mille vingt et ñu bokk ñun ñëpp ñaanal ñi nga xam ni jóge nañu fi yàlla leen yàlla yërëm yàlla na leen yàlla xaare àjjana tey di njeextalu at mi ñu dëgmal beneen at at moomu nag ñi ngi ñaan. sunuy doom yi jàng yàlla taxawu leen bañ seen jàng mët di ñaan yàlla yi tamit ñiy liggéeye yàlla yokk leen ñi liggéeyagul yàlla ubbi leen ay bunt di ñaan yàlla yokkute ci département bi ak njëriñ at mii di ñëw nag ah at la moo xam ni atum yaakaar la ci lu baree bare bare yàlla bu yaakaar tas ci lépp li nga xam ni ñu ngi koy nafar mu jëm ci njëriñ jëm ci doomu aadama yi yàlla nañ ci yàlla dimbale ndax am na loo xam ni gouvernement bi moo koy defar muy ay programme yu mag yoo xam ne day wasaaraw ci réew mi am na yoo xam ni ci département bi lañ koy defaree am na yoo xam ni ci communes yi lañ koy defaree yooyu yëpp nag yal na yàlla mottali yéene yi mu am beneen solo mooy ñi ngi jublu ci ay élection élection yoo xam ni ah tànn sa bu la neex la loolu nag may ñaan ñun ñëpp ñu def ko ak teey ñun ñëpp ñu def ko ak dal ku nekk tànn ka nga bëgg a tànn eh, na mu gën a rafete ñu moytu xuloo yi amul njëriñ yi waxante lu ñaaw lu amul njëriñ yi te xam ne bu soobee yàlla élection yi bu jeexee le 23 ñun ñëpp dañuy toogaat bokkaat suñu kungel bokkaat ngénte yi bokkaat céet yi bokkaat dëj yi bokkaat grand place yi suñuy doom continuer di ànd suñuy jabar suñuy suñuy xarit ñun ñëpp ñu delluwaat Koungheul bi nga xam ne moom lañ bëgg muy Koungheulu jàmm li ci nekk rek mooy ku nekk tànnal ki nga bëgg parce que nag tànn bi du dara lu dul maa kon nag gannaaw maa mën la ku nekk nag mun ngaa tànn ka bëgg ka nga bëgg te doo ci ànd ak benn wax ju ñaaw ma koy ñaan ñëpp li ci des tamit mooy ak nii di ñëw yàlla nañu yàlla musal ci mbas mi nag mbas mi dafa ñëw ci façon boo xam ne bi yoon ragal nañ ni li muy yàq moo ëpp li mu yàq ci gannaaw kon yàlla nañu ci yàlla musal yàlla na yàlla iir yàlla na yàlla aar waaye tamit ñu góorgóorlu ah, dellu ci lañ daan def rek moo gën a baax di takk masque di moytu yenn façon toogaay yi itamit fexe ba képp koo xam ni yaakaar nga ni am na ko ñu jàppale ko moo gën ñu koy daw kon nag li ci topp mooy ñaan yàlla at mi nekk atum jàmm euh, ñu ñëpp ñu fekkee ko ak jàmm yàlla may ñu jàmm ak salaam asalaamualeykum wa rahmatulah.